وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما ديوان الصلوات على النبي العاصم المنصومة والمنصورة لخدمه المبكي مولانا شيخ أحمد بن أبي بالله رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء مقدمة الختمة في الصلاة على النبي رحمة أم مفتاح السادة في الصلاة على خير السادة لخديم محمد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 wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha allasina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman labbayka rabbi wa saadayka walxayru kullu biyadayka abduka layfu lmuqiru bisunubi illati laa yaxfa alayka sayun mina wala min xayra min aljaliyaati والخفيات تائب إليك في هذا اليوم من السخائر والكبائر وسوء الأدب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأيمان والنصور والنقد والإبرام والخير من كل ما صدر منه أو mbokk yi bàyyi xel Tawfekh Production ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen ziar ñu ci dëkk seen bi ci Touba ci wàccaayu bis bi nga xamante si ne moom la sëñ Mountakha woote muy bisu xaside boo xamante ne ñu ngi koy amalee ci dëkk bu sell bi di Touba Touba nag am na daayira boo xam ne ràññee nañ ko fi mu fiy def ay activités yu am solo ci événement religieux yi nga xam ne mooy am ci dëkk bu sell bi di Touba di Mouwahiboul Akyab di daayira bu am solo boo xam ne ay jeunesse yu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñoo ko xalaat ci liggéeyal sëriñ bi ci activités yi nga xam ne mooy am ci dëkk bi rawatina màggali ak événement religieux yi sëñ bi nag wootee wàccee kaamil woo ci taalibe yi na ci biir réew mi ak bitim réew yëpp moo tax nag euh, Mawahibou Akyas nag euh, euh, def ay activité yu am solo muy indi ay ndox ay berne am soxna soo xam ne ñu ngi taxaw ak moom mu bokk ci daayira bi. ak ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba bu baax a baax seriñ Serigne seriñ Serigne Mountakha yàlla nañ ko yàlla fayal. ndax tubaarkàlla macha allah Mawahibou Akyas macha allah yàlla nañ fi yàgg te wér. ndax tubaar tubaarkàlla macha allah dañuy ñaan Serigne Mountakha yàlla nañu ko yàlla fayal ndax jëfam ji tax na tubaarkàlla macha allah muwaayibul ak yaas feeñal ci yéeneem bu baax a baax a baax ku ñëw fii tubaarkàlla ak ni ñu ñëwee fii kenn du fi mara naan kenn du fi xiif kenn du fi sonn boo sonnee sa yére bu xotteekoo sax ñu solal la ko tubaarkàlla yàlla nañu yàlla fayal Serigne Mountakha. suñu daayira bii di Mouwahiboul Akyaas yàlla na yàgg ca kanam ndax ñoom li leen tax a jóg ay jeunes lañ defuñu dara lu ñuy teree lu leen suñu borom di teree defuñu dara lu leen sëñ Touba di teree lu dul nekk ci ndigal bàyyi tere tubaarkàlla macha allah di doxal Touba kon yàlla na leen yàlla fay ci barki Serigne Touba Mbacke tubaarkàlla macha allah. mbokk yi bàyyi xel Tawfekh ñoo ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci wàccaayu bis xasida yi nga xam ne sëñ Muntaxa woote na ko ci dëkk bu sell bi di Touba Mouwahiboul Akyas nag bokk ci daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bu seen bi di Touba di def ay activités yu am solo ci événement religieux yi nga xam ne mooy am ci dëkk bi rawatina màggal yi moo xam gàmmu yi la muy ay jeunes yoo xam ne si am pësee jël seen alal ak seen kàttan yëpp di ko def ci bis bi ñu ngi si taxaw ak euh, kenn si waa daayira bi Serigne Mara ñu fas yéene indi ay témoignages ci daayira Mouwahiboul Akyaas ak seen i activités ci bis bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba mi ngi ñaanal Serigne Mountakha yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko te wéral ay cëram di ñaan ci doole yi Serigne Touba ñun daayira Mouwahibu Akyaas liggéey bi nga xam ne moom lañuy liggéey Serigne Touba lu Serigne Touba na ci dëkk bi nga xam ne ñun dara ñoratul lu liggéey Serigne Touba rek mi ngi ñaan suñu borom din kàttan ak din man-manal din dara jàll ba li ñuy liggéey Serigne Touba suñu yéene ak suñu pas-pas ak suñu jëf nu koy àggal ci doole yi Serigne Touba ak waa daayira bépp nag ci barke Serigne Touba ci barke Xaadimu Rasuul ak mbokki taalibe yi nekk Ndakaaru ak mbokki taalibe yi nekk yeneen gox yi lu bu sëñ Touba wootee soxla woon dara liggéeyub sëñ bi rek ci leen ñuy dem ba jeex ñu ngi sant sëñ Touba bu baax jërëjëf sëñ Touba bi su xasida bi nag waajal nañ ko baax dañ ci togg ay xéwal ay berne dañ ci togg ay añ si joxe ay furi tàngal ci ay café joxe ci ay ndox ndox mi la ñuy wàcc nii di sant Serigne Touba baax na di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàggal ci wér di ñaanal Serigne loo moom jëwriñ la ci daara ji ak Serigne Saliou Mbacké moom Alaaji Baara Fallilu di ñaan nag jullit yëpp ñu ko àndal Serigne Touba. noo ngi fii ci Touba buntu kër Serigne Abdou Fatah nu ànd waa mooy bul ak yaas di ndawi dëkk bi loolu nag ku ne na cee waaye man man naa cee wax ndax fu ñu dem maay géwél bi maay wax bokk ci ndawi dëkk bi nu ànd ak siñoor Moustapha Lo mi nga xam ni liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko ñor ak ndawi dëkk ñuy mooy bul ak nu ànd rek di liggéeyal Serigne Touba. lépp loo xamante ne ñu ngi koy woote sëñ Touba ndawi dëkk bi yëpp jóg nañu ànd ak suñor liggéeyal Serigne Touba. bisub xasaayit bi bi mu jub see sëñ Mountakha joxe ci ndigal suñor yow la ci dëkk bi ànd ak ndaw yëpp dëkk bi yëpp mu wàcc fi ndox ni fépp fu ab tànt nekk naa fa yóbbu xéewal ndox ak lu ma yóbbu ndox mi nag bari na kenn xamul lim ni mu toll. fii ba jullit ba dem nañ fa bundu ko sëñ Saliou dem nañ fa bundu ko sëñ Abdou Fata dem nañ fa foo tànt nekk rek si ñoo nag mooy bu la kiyaas fa ay xéewal waaye nag jëf ji nga xamante ni si waa mooy ak yaas def nañ ko ñu man cee tudd Serigne Saliou Mbacke Alaaji Baara mu ànd ko suñóor loo Alaaji Maara Njaay mu baax mi maam Cerno waa 28 gépp képp koo xam ni Serigne Saliou Mbacké ñor na la waaye Mawahibou Akyas ñor na la waaye nag Mawahibou Akyas liggéey bii nga xamante ni si mooy jàng xasaay moom la Serigne Mountakha Bassirou woote waaye ñu feeñal ci seen jëf gis nga ndox yi gis nga kii bi Serigne Cheikh Mbacké Dioyor Mawahibou Akyas lañ ci def. xam nga li jàpp solo mooy dañ cee def lu sell ndax Mawahibou lépp dañ koy def ci programme ndox mi ñu ngi ci bind Mawahibou Akyas muy liggéey bu rafet. pour jox kon ñuy jàng xasaayit yi foo dem nag fu waay nekk yor baas rek ñu amul xaaj ak seen danañu ko fa andi ndax dañuy liggéeyal Serigne Touba muy lu am xol yi sedd na xasida yi mën na lépp ñuy ñaan nag waa tawféex lii sëñ Muntaxa bëgg réew mi yàlla dolli ci jàmm Serigne Touba yàlla dolli ay leeram yàggal fi sëñ Muntaxa xasida yi mën ko ndax sëñ Touba moo ni wa bimtidaahi ka arjuha una wa xaddan fawsan wa riban wa ridwanan yu xarribu nii wala am na min kulli sa in dim na hoo dararun wa sitra wa nasra fi ahli wa fi watani gannaaw sutura ak ndimbalul yàlla ak aar réew mi lépp a ngi ci moo tax sëñ Muntaxa jàng na xasaay ji yàlla na fa yàgg te wér mooy ba Okias ca kaw ca ñu leen di sant ndax lu mooy bu lu lu lu lu lu Okias nekk rek yéen a ngi ci jëwriñ liggéey bi rafet na bég nañ xol yëpp sedd na dama di waa tawfeex yéen ñi wane xibaar yu wóor ñi réew mi nag ñi ngi leen di waaye bisu xasaay di ñëw ngeen di ko jël si waaye tey am ngeen lu ngeen wane da ngeen a ñëw ci mooy bu lakk yaas ndawi dëkk bi siñoor loo ngi nii mu baax moom Baye Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek ko ñor waaye am ngeen lu ngeen wane xéewali sëñ Bamba yaa ngi nii fu baas nekk rek waa mooy bu lakk yaas ndawi ndawi dëkk bi jël nan ay xéewal yóbbu fa amun xaaj seen nag yóbbul fee saa yóbbul fee cinquante ah taw am ngeen lu ngeen wane xéewal yaa ngi nii mooy bu lakk yaas ndawi dëkk bi jàmbaari Serigne Touba yi tey xool yëpp sedd na lii rek mooy liggéey Serigne Touba Serigne Touba moo ne inna lasina saarixoo bi xidmatin fa lahum diyaar wa sal jannati ku bëgg li dem àjjana liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba moo ne bi xidmatin abi hubbin awa diyaati ndokk ndawi dëkk bi yëpp liggéey sëñ Bamba moo leen ñor xasida yaa ngoog xasida yi ci la jàmme àdduna nekk jàmme àllaaxira ci la nekk woo daan min kul sa indim na wa darrun wasata wala sëriñ Aliou Wawite wa xudwati wa bi anni ralitu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani dalilan wa bil kahbati qiblatan wa muqiran laka bi annaka خير الرازقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأيضا بأنك الغفور الرحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الخني المخني وبأني راد عنك ردا لا صوت بدو ساكر لك شكرا لا كبر بدو هلا ما أنمت به مما لا يعد ولا يصاب حتى سترتني في الدنيا ولم تبلغني فيها ما كثرة جرمي وسل لي والتفاتي وتجري فبحق كرمك وجودك وعفك سل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تنتمو بها أني كل ما صدر وما سيدر مني